أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci saar bii di suratu tawba ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñaari aaya aaya 69 ak aaya 70 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ngi ñu ciy jàngal ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mooy al igtiraar bil maali wal walad min awaamili adami qubuli lxaq wal izaani lahu wa tasliimi bi sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi ñuy xamal dafa am ay mbir yoo xam ne ay élément yoo xam ne bu dalee doomu aadama bu ko doomu aadama amee yenn saa yi rek day bew ba ca jiitu mooy alal ñaareel bi mooy doom sunu borom wax nañu ci suratul alaq kalla inna al insana la yabtaga mata an ra'ahu staghna gis nga doomu aadama léeg-léeg bu ko yàlla dénkee dara rek day réew day bew day commencé di fëgg dënn day commencé di salleeru day commencé di wane jikko yu ñaaw lu tax parce que dafa am dara koo xam ne nag yàlla dalaa nattu nga am dara wala nga am ay doom mooy al igtiraar da ngay waru bil maali alal day war nit moo tax day néew ci borom alal yi ñi leen di wax dëgg ñu nangu ko borom alal sax boo ko bëggee wax dëgg yow man ngay wax dëgg yow yow yaay kan yow ba may wax dëgg réew yi ngay dégg ñu lay wax fekk alal gi du dara yàlla moo la ko dénk rek ñaar buy ñëw ci yow du la tàggu buy dem du la tàggu ndax xam ngeen ñaar yooyu ñaar suy ñëw ci yow du la tàggu buy dem du la tàggu ndax xam ngeen ko bu njëkk bi mooy alal alal buy ñëw du tàggoo day yekk rek nga am alal suy dem day xëy rek ñàkk ak dof dof buy ñëw sa kër ndax da lay woo téléphone allo foo nekk maa ngi nii dof da la tàggu buy dem du la tàggu ñaari yooyu duñ tàggoo doomu aadama dafa war a xam yàllaay maye soo amee alal nga bañ a woru alal ji bañ laa jay ñenn ñi sax dañuy am alal ba yaxsabu anna maalahu axlada dafa ne duñ dee du dee fi mu ne nii boo nee nit dee nañu ne kii xanaa amul woon dara bu ñoom patron yi duñ dee waaye xoolal ndeysaan démb rek yaakaar naa suul nañ benn milliardaire koo xam ne bàyyi na chiffre d'affaires ñaata. soixante quinze milliards chiffre d'affaires non soixante quinze milliards. la bàyyi fra ah chiffre d'affaires ba pare bàyyi ko fi dee allahu akbar dafa am chaque jour sunu borom daf ñuy won ay dars mais ñun duñu duñu duñu xalaat duñu réfléchir doomu aadama yi ci am na ñoo xam ne ci ay borom alal dañuy seetaani mars mars barça ñëwaat ah am na ci borom alal yi dañuy xoolal kañ la mars bi ñu ne tey si 16 heures 8 heures ñu quitté Sénégal mars bi tas ñu fanaan siwaat Sénégal allahu akbar te sax mars dañuy dem ah ndeysaan dégg naa am na benn borom alal boo xam ne jullit la ki moom dàngoot ciment bi chaque vendredi Makka lay jullee vendredi moom chaque vendredi Makka lay julli ji du julli du julli ci àdduna bi Makka rek allahu akbar xam nga kooku xam na li tax yàlla may ko alalam parce que doomu aadama boo amee alal da nga war a xam alal ji li nga ci jaamu yàlla dong moo lay jëriñ xoolal ki bàyyi sànq li ma wax ki ko bàyyi fii léegi lan la ko jëriñ yonent bi saa salaam nee na seen alal li ngeen ci lekk mu rees loolu ngeen ci am li ngeen ci solu mu ràpp li ngeen ci saraxe mooy lu des alal yàlla bu la ko mayee def la wax pour nga jaamu ci moom pour nga am aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi dañoo ñëw ci moom ne ko borom alal yi day raw nañ ñi ndax ñun lu ñu def ci jaamu yàlla borom alal yi def ko ñun bu ñu jullee borom alal yi julli bu ñu waree ñu war bu ñu saraxee léegi nu ñu def waaw borom alal yi ah yonent bi ne bu ngeen julleetee ba pare def leen subhanallah fanweer ak ñett alhamdulilah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett ñu jékki-jékki ñu ñëwaat ci ren yonent bi gars yi gis nañ affaire bi dañu ngi koy def yonent bi ne eh yàlla moo leen ko xéewalal kon nag ku nekk ak li la yàlla xéewalal ñoom yàlla moo leen may loolu kon mbokki jullit yi alal ak doom day wor nit day tax yenn saa yi doomu aadama du nangu dëgg dafa bokk ci éléments yi nga xam ne da lay tere nga nga nangu dëgg borom alal pour nga wax ko dëgg ku am ay doom nekk ponkal doom yi di ko wër escorté ko li daloon Walid ibnu Mughira nga xam ne bu toogoon côté bi fukk côté bi fukk kenn ñemul wax yenn saa yi am am wala njaboot wala ay doom day tax nit bew day tax doo nangu dëgg loolu nag day tax doo jébbalul yàlla tabaraka wa taala ndax sa bopp rek ngay xool xanaa xamu leen gisu leen borom alal ñu ci bëri duñ dem jàkk seetlu leen lool dëkk boo dem bu fa ñaar fukki borom alal dëkkee kenn nga ciy gis jàkk kenn ñu ne ñëpp duñ dem jàkk duñ dem ci palaasu lislaam yi buñ demee sax duñ yàgg dama am rendez-vous kër ga noonu la ñuy def dañuy daw conférence yi sax ndax xam na ne buñ toogee fii dañuy dégg loo xam ne benn waay dafa demoon màkk am alal mu dem màkk mu ñëwaat gars yi ne ko naka màkk mu ne ku bëgg a torox rek moo fay dem ku bëgg a torox rek mooy dem màkk soo bëggee toroxal nit mu ne may ko biyee màkk xam moom noonu la gisee waaye dee na xam nga tax wax loolu parce que màkka faalewul borom alal da ngay rang duus da ngay tëdd ñu lay buux da ngay buuxante dañ lay tànc dañ lay naj doo sol tubéy doo sol silip doo sol yére da ngay traxlaayu mu ne lii daal parce que moom jam ñam na nekk na borom alal suy dem dañuy téye saak bi suy su ah suy wax dañ koy indi lekk fee nag mën ngaa xëy sax doo lekk ci suuf ngay tëdd amul kaw lal allahu akbar foofu boo fay jaay dara boo fay yeggee day lamb soo fay jaay ay martaba ak maqaama comme li xew Sénégal di ay yooyu amul foofu moo tax fii gis ngeen sëriñ yi sax duñ dem màkk illa man rahima rabbuk seet leen lool wala yéen gisu leen lool am na kilifa yoo xam duñ dem màkk pourquoi dañoo jàpp ne buñ demee foofu dañuy torox nga gis kilifa gi mu wodd maa fihi mbasin maa fihi liére waaw fii lépp dañ ko koy defal fee ana man ana yow ah waroon ñu bëri duñ dem parce que foofu toroxlu la màkka toroxlu la laaj te gars yi bëgguñu toroxlu nañ bàyyi xel bu baax ci aay yi ñuy jàng gis nga alxuraan bi ku bëgg a defaru alxuraan moo lay defar wallahi amul luy defaraata ci kaw suuf lu dul alxuraan tey lépp am nañ ko wala ñun ñoo ëpp saxaaba yi moyen ah ñun ñoo leen ëpp ay moyen ñoo leen ëpp ay matériel ñoo leen ëpp alal ñoo leen ëpp lépp waaye ñoom lan moo tax ñu raw ñu parce que seeni jikko moo baaxoon lan moo defar seeni jikko mooy alquraanu karim te nan lañ defaroo mooy lii moo leen defar aaya yi lañ jàng xeex ak seeni bakkan jéem a dund aaya yi ba seeni alal sono lu leen woon xoona ki ne ki ne ki taxaw ak mbokkam yonent bi ne diw mu ne amu ne ko kii mooy sa mbokk na nga mbokk ak moom pour mu won yonent bi ne kii sama mbokk la mu ne ko am naa ñeenti jabar am naa ay kër am naa ay tool dañuy dem kër gi nga xool jabar joo bëgg ma fase ko nga takk ko nañ dem tool yi nga xool tool boo bëgg ma jox la ko nañ dem kër yi nga xool kër ko bëgg ma jox la nga dëkk allahu akbar xoola kooku tamit liñ ko wax bu doon kenn ci ñun mu jàkkaarloo ki ko wax loolu mu ne ko baarakallahu laka fi maalika wa ahlik dullu ni ala suuq yal na yàlla def barke ci sa alal ak sa njaboot wan ma marché bi rek wan ma marché bi mu won ko marché bi waa jooju dem li mu indaale woon nga xam ne ñaar dërëm la mu dem di jënd di jaay di jënd di jaay ba gën a nekk plus riche Medinatul Munawwar muy Abdurahman ibnu Awf radiyallahu anhu wa ñooñu noonu lañ meloon alal jiitalu leen dañu jëloon seen alal joxe ko ci yoonu yàlla ñooñu dañu wut alal xoola Ousmane joxe alalam ba yonente bi ne ko Ousmane loo defati yàlla xoolu la xam nga loo ñu naan mbaa yàlla da ngay dégg Sénégal ñu ne diw sëñ bi da ko mbaa yàlla ah xam ngeen mbaa yàlla mooy lan mooy defal lu la neex ku toll ne yonent jàkkaarloog nit ne ko defal lu la neex loo defati yàlla du ko xool loolu suñ ma ko waxoon tey ngeen defee ne dinaa tafsir si ah dama leen di laaj su ma yonent bi waxoon defal lu la oustaz imam saayid dafa dafa wat ko wel wat ko wel ko meela daa saa yi di ngeen ma gis tafsir du ngeen ma gis de parce que la tax dugg naa àjjana ba pare lan laay doyati leneen kon julli sax dootuma ko defati day toog di xoolee wax man ya man lu ma defati yàlla wàcce na ma liggéey loolu mooy wàcc liggéey dañ ko wàcce liggéey loolu mooy mbaay yàlla dañ ko wàcce liggéey yonent bi dafa wàcc Ousmane liggéey te Ousmane di liggéey yàlla wàcce yonent bi liggéey yonent bi di liggéey ah yàlla dafa wàcce yonent bi liggéey wala wàcce ko alquran la qad aflaha almumin inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfiraka allahu ma taqaddama wa ma lu fa des liyaghfiraka allah ma taqaddama min zambika wa ma taakhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka lu fi desati ndeysaan yaay Aysa ñëw ne ko yow de yàlla baal na la te nga tëdd nelaw mu ne ko afala akuna abdan shakura sallallahu alayhi wa sallam te guddi gi danaan julli ba tànk yi di métti bu ko yàlla ne yaa ayyuhal muzammil qum yonent bi nelawatul 24 heures guddi gi da koy xaaj ñetti guddi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñun ñun ku ci gën a baax mooy kii yow fajar dem jàkka fajar kookoo gën a baax ah ñeneen ñëpp ndeysaan boo rombee seeni fenêtre 4 heures du matin li gën a ndaw li ngay dégg mooy ay xaran ñaareel bi mooy tasaabuhu xaalul basar doomu aadama yi seen dund dafa nuroo loolu yàlla naan tasaabahat qulubuhum qad bayyana al ayat li qawmin yaqiluun tasaabaha xaalul basar wattibaai baaduhum li baad fi lbatil walfasad wa char imagineel tey fii ñu toll ci adduna bi am ñu yàqu ba pare ne nañu yàq ay nit pare pour jàppale yàqkat yooyu est ce xam ngeen ne Sénégal légalisé nañ góor jigéen léegi dañ doon wax ne tolloo guñ ci loolu président waxoon tolloo guñ ci heure bi ma wax yéen légalisé nañ ko ministère de l'intérieur am na douze association góor jigéen yu mu reconnaître permis yu bees yi permis yu bees yi zaar lañ ci def defuñu ci sexe zaar lañ ci def zaar mooy la mooy góor jigéen moo tax ku am permis am nga lu araam waaw ku am permis ba pare nga dugal ko sa poos ñoo nag naan yàlla allahu akbar fekk permis baa ngi sa poos te zaar nekk ci góor jigéen nga bëgg ne allahu akbar ba pare a booy julli da nga koy bàyyi sa kër da nga koy bàyyi ci oto bi gis ngeen gis nga gis nga contradiction buñ ñuy def mooy man gëmuma lii te mu ngi sa poos man dunduma lii te mu ngi sa poos fooy dem yóbbaale ko suuf gis nga fuñ jëm kayit yëpp ñu ngi koy dindi ci carte d'identité yi lañ jëmaa un jour viendra ne ne dañuy dindi carte d'identité indi yu bees ngeen dem ñu ne la homme femme genre mais fan lañ jëm lan moo tax ñun loolu loolu est-ce que daf ñoo intéressé lu tax France def ko rek wala Europe def ko rek ñu ne laa budd dëkk jullit yi def ko mooy tasaabax xaalul basar mooy nuróo gi nga xam ne tey doomu aadama dañuy jéem a nuróo di copier di teg au lieu sax ñu jël lu baax xoolal yàlla mu ne góor ak jigéen nañ sëy loolu mooy sunanullah fil ard góor na takk jigéen même sëy boobu sax dañ koy réglementé parce que yàlla bëggul ñu def ko dund njaay àll dund comme xaj yi muus yi ni ñuy dundee nga nekk ci mbedd mi rek gis benn xale bu jigéen rek daw rek jàpp rek tëral sëy pare mu dem moom it ëmb ana bàyyi doom bi tey laay dégg tey laay laay dégg benn message tey ci sama portable benn xale bu jigéen mu ne ki ma gën a bañ ci àdduna bi mooy sama papa mu ne iblis bu taxawoon nii sama papa taxaw ñu ne ma tànnal kenn iblis laay tànn suñ ma joxoon jaas yi ne ma reyal ñoom ñaar kenn sama papa laay rey gis nga gis nga fuñ jëm gis nga fuñ toll doomu aadama ab jullit sénégalaise dem ba wax ne iblis moo ma gënal sama papa lan la ko papa ji def loolu mooy question bi lan la ko def ba xale bi toll foofu mooy dañoo topp tubaab bi di leen toppandoo di leen toppandoo ba tey raw nañ leen ci mbon xoolal xale jigéen yi ni ñuy dundee xoolal xale yu góor yi ni ñuy solo mooy tasaabu xaalul bashar ñee luñ def lu bon rek ñun ñu daal di ñëw jël lu gën a bon def ko wattibaay baaduhum li baad dañuy toppante ñee légalisé nañ góor jigéen ñun nañ nekk góor jigéen ñee nekk nañ ay giin nañ nekk góor giin ñee def nañ leen nañ def lii ñee naan nañ nañ naan bu ñee sojoo ñu ñu tisooli yal na yàlla yërëm waa ji bindoon téere ne Sénégal qalbul qalbul islam wa lisaanul kaafir Sénégal qalbul muslim waaye wa lisaanul kaafir Sénégal xol bi julli la waaye làmmiñ bi yéeféer la loolu wattibaa baaduhum li baad topp bi ñenn ñi topp nee ñi fan lañ leen topp fil baatil wal fasaad wa shar xoolal tey ni ñuy copier mbon ci àdduna bi ni jullit yi di copier bon au lieu sax ñu jël lu baax kenn du ne doo jël mais booy jël da ngay jël lu baax soo gisee waa ji di def dara da ngay xool nga xool lim def lan moo ci baax nga jël li bon li nga sànni ko ko mais ñun dañuy bàyyi lu baax li jël lu bon li dañuy topp tubaab bi d'accord est-ce que topp nañ leen ci ni ñuy defaree machines yi ah topp nañ leen ci santé ni ñuy fajee ku fi feebar fooy dee fan yi Sénégalais yi dee fi kilifa yi dee Sénégal fan yi fan lañ dee lu tax fajowuñ fi benn président bu nekkoon Égypte bu tudd Husni Moubarak dafa jóge Égypte dem Angleterre Londres di faju benn restaurant bu mu toogoon ki koy indi lekk bi gis na ni mu toogee xam na mu jàpp ne kii kilifa la mu ne ñi muy liggéeyandoo man haza kii kan la ñu ne ko haza Husni Moubarak mu ne kuy kooku ñu ne ko kii moo nekkoon président Égypte 40 ans mu ne raïsun facile mu ne président bu perte ngi nii ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne 40 ans nga jiite dëkk ba pare nga feebar bàyyi dëkk ba faju ji feneen yow da ngaa perte waaw torox wax na dëgg wax na dëgg 40 ans nga jiite dëkk nga feebar bàyyi fa dëkk bi dem faju ji feneen defoo fa dara wala loolu mooy wax bi tey sunu sëriñ yeeg gouvernement bi autorité yi borom alal yi ku feebar foo jëm lu tax duñ dem Dantec lu tax duñ dem fan lu tax duñ dem Roi Baudouin wuy leen ma ah lu tax kon dañuy dee ah kon léegi ñun nag kon ñun dañuy dee voilà kon ñun ñëpp léegi ñu dee ñun ñi ñëpp waay loolu moo lay wane dëkk bi mbir maa ngoog léegi ñoom ñoom ñoo ñu jiite ba pare dafal ñu hôpitaux yi te bëgguñu cee faju te ñoom ñoo ko fi def ñoo formé docteurs yi ñooy indi lépp koo wax mu ne la yow mi mënu dem fële nag ñu lay watal ci hôpital yi ba nga xëy rek ñu ne bismillah ajjine moda ajjine moda calma benn waay sama benn xarit may àndal fii julli vendredi doomam dafa jékki-jékki barki démb rek biir bi metti mu daw yóbbu ko hôpital mu dem fekk fa docteur bi mu ne ko xale bi la ko dal mu ne ko biir bee metti xam nga waa ji lu mu def ne ko toogal mu toog waaye taal ordinateur bi tàppe google di xool ban garab la ko war a bindal pour mu faj xale bi google la dem google docteur google loolu koy yomboon na yomboon na waaye jël portable dugg google daal leen di bindal sama doom biir bi day metti day wàccu rapidement ñu indi la garab mais wala nga dem ci docteur mu lay mu dugg google kuñ jëm moo tax ñoom duñ fi ñëw xam nañ lu xew ku feebar doo fa doo fajoo waaye nag faj yàllaa ko moom wér ci loxo yàlla nekk ñaata nit ñoo fa dem bi ñu ñëwaat ci kees lañ leen dugal indiwaat leen ba ci sunu sëriñ yi ñaata ñoo dee Europe ñaata da ngay daw dee fekk dee mu ngi foofu ayna ma takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin musayyada qul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu yàlla ne da ngeen di daw dee waxul day def topp seen ginnaaw de yàlla waxul loolu aaya bi ko firee noonu da ngaa juum qul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu da ngay daw mu ñëw xam nga da ngay daw de moom mu ngi ñëw ci yow nekkul sa ginnaaw di la dàq non non daf da ngay dajeeg moom da ngay daw muy dajeeg yow ngay daw muy daw kon da ngeen di gaaw a jege da ngeen di gaaw a daje loolu la yàlla wax te yàlla nee na fu ngeen mën a nekk dee googu dina leen fa fekk loqarti leen ngeen dee te kenn du ci mun dara nit ñi tiim la naa ne ndeysaan allahumma innahu abduk kenn du wax leneen lu dul loolu allahumma innahu abduk yàlla waa jii tëdd fii ñu ne mu ne sa jaam la de kenn dootul wax colonel la kenn dootul wax muqaddam kenn dootul wax shérif kenn dootul wax yàlla allahumma innahu xalif général maa fihi xalif général wa maa fihi président xaw ma conseil économique social wa maa fihi président de la république dégg ngeen président Égypte te Tunisie moo jëloon bigam rouge di corriger alquran yàggul de li may wax ni matu sax 6 mois muy corriger alquran daan daan ne kenn du topp alquran constitution la ñuy topp kenn du fi jox góor ñaar ci miraas dañ leen di tollale parité di corriger alquran naan nii anamu tey kañ lañ ko suul ah tey suul nañ ko ana alquran bi mu doon xeex te continuer du taxaw yàlla bu rëddee ne la jàllal nga effacé ko ne ko rëdd jàlluma du du nekk di xuloo yow day rëddaat ne la jàllal nga effacé ko ne jàlluma du rëddaat day xar suuf si ñu dugal la mu tracé sa kaw ñu ne jàll leen ñu jàll mu ngi ni dee na tey ana kees ga suul nañ ko ana islam islam taxaw na yuriduuna li yutfiu nuur allah bi afahim wallahu mutimmu nuur walaw karihal kafirun lu tax huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa diini lxaq li yuzhirahu walaw bu ñu xam loolu diine bi diine yàlla ku koy xee da ngay sona sa bopp su yeboo ñu nekk ay jullit ñu bañ ñoo nax ñu bañ a jël mbon gi nga xam ne tey moom la Europe di sotti ci Afrique di ci sotti ci alamul islami umma islami bu yeboo ñu rejeté ko ñu bañ ñu lànk kenn moomu la yaa moom sa bopp waaw yeneen yàlla taxaw ba ca tegu mooy hubutul amal bil batil wa xilaaki ahliha amrun muqtada bihi la yataxallaf wujubu hubutul amal yàq jëf yi lii yàq jëf yi ku nekk war ngaa xam lii yàq sa jëf lan moo yàq jëf yi mooy bil baatil lépp loo xam ne caaxaan la day yàq jëf kon sooy jëf fexeel nga nekk nga nekk ci dëgg nga def dëgg waaye ay caaxaan tey ji Sénégal xoolal dëkk bi caaxaan kes da ngay fekk ay nit yoo xam ne nelawuñ guddi gi waaye ndax xiyaamul layli moo tax nelawuñ ndax jàngal quran ndax zikr lan di fecc yor seeni sabar di tëgg rek di fe di jayeexu ba fajar jot ci démb guddi gi neex na ci lan la neex da ngeen doon julli saxaaba yi de la neexaloon seen guddi mooy julli kaanu qalilan min alleyli ma yaxshawun allazina yabituuna li rabbihim sujjadan loolu moo neexaloon seeni guddi qum illeyla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi li neexaloon seen guddi mooy jàng alquran julli ba sonn toog jàng alquran allahu akbar waaye ñun lan moo neexal suñu guddi yi fecc dukkat dañuy dukkat fan lañ gis ne dukkat leen ana hadis bu ne nañ dukkat non gars yi du ñu fecc dañuy dukkat ku bëgg a dugg ci mbon gi rek ah ku bëgg a tey jii ku bëgg fo ku bëgg fo foo jëm da ngay dem di dugg ci benn benn benn yoon ah boo bëggee fecc sabar boo bëggee naan sàngara boo bëggee tux yamba foofu ngay dem rek foofu moom lépp dagan na da nga koy def ba pare nekk jullit loolu musiba la loolu day yàq ay jëf dañoo war a xam li yàq jëf yi ñu mooy tandiku beneen bi mooy wa hilaaki ahliha ak li nga xam ne day alak ñi koy def lii su ma ko defee damay alku yàlla def may mere damay dugg safara nga mooy tandiku loolu mbokk yi am na fi jëf yoo xam ne ku ko def waxuma la sa diine waxuma la say julli say jaamu yàlla waaye sa islam moom moo yàqu sa islam lu jàngeen lu yàq njàpp du jàngeen ko ñun ñëpp xam nañ lu yàq njàpp de ah xam ngeen lu yàq julli xam ngeen lu yàq koor noonu la amee lu yàq lislaam kon nañ mooy tëndiku def loo xamante ne sa lislaam day yàq kenn mënatu ko réparé dul nga tuub delluwaat ci sa borom ba ca tegu mooy wujubul itibaar bi ahwaali saabiqin mbokk yi dafa am ay événement yuy passé suñu kanam di romb ñun waru waruñu ko gëmm mbir yooyu dafa war a leer ci ñun ne li dal ñii bu fekkee ne ci lii la ñu continuer li daloon ñee moo nuy dal te ñu ngi ne di wax mbirum góor jigéen ñun ñuy rakkaaju di dem di di dof doflu tere woon nañ yonent bi tere woon na jigéen di jiite ay nit ah wala tere nañ jigéen jiite ay jullit wala ci lislaam tere woon nañ ko wala terewuñ ko bi ko Ablaye Wade légaliser lan moo xew Sénégal jota bataloon Joola moo tëmb ci géej gi ñaata moo dee ñaata nit ñoo dee woon wala jamono boobu du jigéen moo jiite woon premier ministre laa yuflih qawmun walla amrahum imra sallallahu alayhi wa sallam nee na ay nit ay jullit su leen jigéen jiitee rek seen mbir du baax mu nga du commencé nañ encore léegi di jël góor jigéen ñi di dugal tëmbal tëmbal Sénégal di ko dagaat di ko daganal xale yi góor yëpp léegi tubéy góor jigéen la ñuy sol ay mbax ne góor jigéen semis góor jigéen ay man balaa nga gis xale bu góor bu naan di rëgg ci ay bët su ma la pesee àllaaxira nga jëm ana góor ak gis naa benn waay bu naan yéen ustaas yi sari kala kala béykat kala béykat sax xamu leen ko. vidéo boobu daf maa jommal ba mu ñeme ma ko mënu ma ko effacé ndax damay toog ba caag ma xoolaat ko. yéen. laalu leen kaaba demu leen màkk pare waa luy laal kaaba ak dem màkk gis kaaba xaw ma lu mu waxee laal màkk ak xaw ma nu mu koy waxee inna lillah mu ne góor jigéen bu laalee kaaba day seey loolu ban aaya la inna lillah nga gis góor goo xam ne kii day leen leen di jigéen la di wax bët yi gémmiñ geeg loxo yi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim doon koy leer na am nañu alxuraan sax du gis ngeen ko du xam ngeen ne góor jigéen ñi taalif nañu alxuraan du xam ngeen ko de du gis ngeen ko yéen ñëpp teg ngeen ci bët fu ñu jëm chaque jour ma laaj ko fu ñu jëm ñu ngi toog rek ñu ngi toog rek wallahi al-azim te fu ñu jëm baaxul du ñun suñu bopp mais suñuy njaboot ndax yow tey nii nga dëgëree nii sa njaboot ëllëg moo tax affaire bi du ñun moo tax ñun ñëpp war a jóg bàyyi leen ñuy wax ne gii la ngeen naan oustaz yaa ngi fa imaam yaa ngi fa ñun ñëpp dañoo war a taxaw aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñu diine mbokk yi dañoo war a def itibaar bi ahwaali saabiqin yàlla chaque jour alquran daf ñuy jox ay ay misaal xanaa gisu leen alam tara kayfa faala rabbuka bi alam tara fa alam tara kayfa faala rabbuka bi aad ñaata yoon la yàlla dañuy won ay dëkk wa kam min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fa hasabnaha ñaata yoon la ñuy yàlla di won ay dëkk naan xool leen dëkk yi fa amma thamud fa uhliku wa amma aad fa uhliku ñaata lan lañ def léegi nag ñun dañ koy jàng rek toog ba pare def lool ah nit day xelu nit day xelu nit day yeewu ñaari silmaxa dañoo ànd dañoo ànd rek di tooñ di dem benn kër tubaab tubaab bi bu ñëwee weekend ubbi këram root piscine bi sangu dem gumbay bu ñëwee rek bu max bunt bi dugg sangu tubaab bi bu ñëwee mu ne waaw man dañuy dugg sama piscine bi ndeke gumba yi la tubaab bi xam na ne léegi yellu na leen ba xam ne gumba yi la mu sangu ba pare daal di vidde piscine bi taxaw fële nag di xool benn gumba bi ñëw dañ daan def bu ñëwee rek simmeeku rek plongé affaire bi na bu jum kenn ki plongé ni rëll ci karo yi affaire xam nga daanu ci karo ak daanu ci ndox ñaari daanu yi du benn de sooy daanu ci ndox day am benn son boo xam ne di nga xam ne lii kii de ci ndox la dugg léegi nag bi mu daanoo daanu bi métti mu ne keneen ki ñëwal keneen ki ne ko dégguma pucung-cung de dégguma pucung-cung xam nga kooku xelu na gisul waaye xalaat na parce que démb yàgg na fee ñëw yàgg na dégg bu ñuy daanu nu muy def léegi nag kii nee na vrip xam na ne affaire bi metti na kooku ne ko moom tamit soxor ba bëgg a dee au lieu mu ne ko bul ñëw mu ne ko ñëwal gis nga nit ñi ni ñu soxoree ñee ñoom dañoo àndoon di sàcc kenn ki dugal loxo bi ñu jàpp loxo bi ne ko kirtim dagg mu génn mu gis loxo bi dagg mun na bugg mu ne keneen ki dugalal rek keneen ki dugal ñu jàpp loxo bi kooku xëcc xëcc ne ko jàpp nañ sama loxo de mu génne loxo bu dagg bi ne bala ñu koy bàyyi mu mel nii gis nga soxor au lieu mu ne ko bu dugal mu génne loxo bu dagg bi comme ni ko nëbboon mu ne ko bala ñu koy bàyyi mu mel nii léegi mu woon ko daggit léegi ñoo ñoom ñaar ñoom ñu dagg seen loxo ñu dem ñëwit tolloo nañ parce que loolu la bëggoon gis nga doomu aadama yi mooy comme ñee dañoo bon dañuy bëgg ñun ñu bon waddu law kama fatakunu sawa ñoom ko xam nañ ne safara lañ jëm ay yéeféer lañ ñu bëgg ñun dem ñu nekk ay yéeféer ñu ñëm ñu dem safara loolu kese la de waddu law tudhinu tudhinun kon doomu ndey mbokk yi dañoo war def itibaar ci li daloon xeet yu njëkk ya balaa mu ñuy dal kon aaya yooyu la ñuy jël tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génn alquran bi sunu borom subhanahu wa taala mu ne kallazina min qablikum kaanu ashadda minkum quwwa mu ne ñoom kallazina ñu ngi mel ne gaa ya nga xam ne min qablikum ñooñ ñoo leen fi jiitu woon gis nga de xanaa xamu leen ñi leen fi jiitu woon démb kaanu ñooñu nekkoon nañ ashaddu ñoo gën a dëgër ñoo gën a tar minkum ci yéen quwwatan doole ñoo ñoo ñëppoon doole est-ce xam ngeen ne nit ñi njëkk ñi ñoo ñëppoon doole ah ñooñu gënoon gudd fan ñooñu mënoon ñoo ñëppoon doole loolu da nga koy xewal sax ci mag ñi am na paa yoo xam ne buñ la téye ne la kirtib dootoo tëcc ñooñu dañ doon yett ñun bu ñuy bëggee ay kër dañuy def ciment suuf mool ñee dañuy ñëw fekk montagne ñu yett ko def ci ay kër dëkk ci lan moo leen di wane nit ñi njëkk ñi ñoo ñëppi doole gis ngeen pyramide Égypte yi ñan ñoo ko tabaxoon kañ lañ ko tabax gis ngeen birig yi niñ toll te tey di ñun ñooñu tey dañuy wax ne ñun ñoo gën a avancé xoolal ñooñu jamono boobu ba léegi mu ngi fi ah waaw ban ciment lañ ko tabaxee woon ah ban yan ingénieur ñoo fa taxaw nekkoon di ko réglementé koñ yi mu tolloo ci suuf ba ci kaw cat yi loolu moo leen di wan ne ñooñu ñooñu ëppoon doole sunu borom ne kaanu nekkoon nañ ashadda minkum quwwa ñooñu ñoo leen gënoon dëgër ñooñu ñoo leen ëppoon doole wa aksara amwalan wa awlaadan ñoo leen ëppoon ay doom ñoo leen ëppoon alal allahu akbar xoolal qaaruna lan la yoroon ci ak alal inna qaaruna kaana min qawmi muusa wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu qaaruna kese li mu amoon ci alal caabi alal yi caabi fiñ denc alal yi ay gëléem ñoo ko doon yëkkati ay gëléem lañ ko doon sëf nit ñi attanuñ ko woon ndax caabi yu bëri allahu akbar loolu est-ce que am na seen am na ci àdduna bi tey ko am alal joo xamante ne alal ji ay 4 4 ñooy yóbbu caabi yi ah allahu akbar xoolal doom doom ñële dañ daan jur ba sonn ñun ñetti doom ñu ne ba jeex na sonn naa dama sonn ci njur mi sonn naa dee naa taabal ja daa metti voilà jigéen ñëppay planning léegi koo wax mu ne la juruma ñeneen ñi sax dañ la koy xasee yow fi nekk di pacc pacc yooyu lañ lay wax xoolal waxi bool yooyu terme yooyu lay yooyu lay pacc pacc ni soo demee sax sas saami ne yow ñaar doom nga am nga ne man am naa juróom ñu ne la ilaha illallah waaye yow moom koy njëkkanteel di la xoolal dañ lay découragé di la waxoo yoo xam ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te soo dof dof loo ñu ñu dagg sa biir bi xotti ko dootoo amati doom césarienne léegi ku ñëw ñu césarienne ku ñëw ñu césarienne ku ñëw ñu césarienne bu ñu la defee ñaari yoon terminé ñetti doom nga yam fa nga yem césarienne or ci ci planning la bokk waaw ci ci xeet yi ñuy xeexe islam ak xeex jigéen ñi ci la bokk waaw ci la bokk de est-ce xam ngeen ko moo tax docteur yi du ñu xaar bu njëkk ba da ngay da ngay mën ngaa matu 24 heures ñu bàyyi ba nga am doom ñu patienté mais ñëw nga léegi léegi amugul doom ana dugal leen ko ci bolog bi xotti leen jeex na parce que prime la dañ leen ciy fay docteur yi dañ prime la dañ leen ciy fay gis ngeen léegi foo daw jëm sa doom bu nga am doom foo koy yóbbu ñun ñoo ko def xam nga tax ñoo ko def suñu jàngaloon suñuy jigéen génne suñuy alal ut ay terrain tabax ko ay hôpitaux def fa suñuy jigéen def fa lépp ba ñu mel ni ñoom nga xam ne c'est privé ku sa jabar kii ñu yóbbu foofu nga xam ne ay jullit la fay fekk kon problème du am waaye ñun comme ñun dañu toog di xoole football lañ gëm dañuy toog rek di supporter ak di yuux ku ñu yóbbu fee rek ñu xotti sa jabar waxuma sax lu gën a doy loolu lu gën a yées loolu ab góor moo ñëw jël baaraamam di ko dugal ci ginnaaw ci kanamam di xool naan day passé visite rek ëmb naag ëmbut ab góor waaw kon xamuñu lu ñuy xaar ñun xamuñu lu ñuy dund ay gis ponkal moo xam ne jàng jàng lu dul dugal baaraamam ci kanamu jigéen ñi loolu la jàngi woon ñu naan gynécologue amul lu mu jàng lu dul baaraamam rek ci ci ginnaaw xale jigéen ñi yow doo dem nga jàngi leneen nga bàyyi jigéen ñi ñu jàng lii ah ah déedéet soo waxee ñu ne la ñett lañ Sénégal ñëpp ay góor lañ wala ñeent ñaar ñi góor lañ benn ngi mooy jigéen la ilaha illallah kooku lu muy wax yàlla ëllëg caay caay weesul yow jàngoo ludul jël sa baaraam di ko dugal ci awra jigéen ñi te non non day sol ay gants luy sol gants day gëmm di làmbatu xanaa yooyu yëpp sax dara baaxu ci waxuma laak nag subhanallah te jigéen ñi dañuy raa dañuy raa sax comme jumaa ji ni ni ñuy tafsiré jigéen ñi dañuy raa di ko xaar ku ñëw rek mu ne si meekul tëddal ah ca ubbi say tànk fuñ jëm ah ñun ñoo ko def nag ñoom defuñu ko de ñun nii la ma ne chrétien yaa ngi nii am nañu ay hôpital wala amuñu ku fa feebar sax ñu ne la yóbbu ko yóbbu ko fan kër sër ñun ana ana yóbbu ko kër jullit yi yóbbu ko kër jullit yi ana mu waaw ñun ñoo ko def kon ñun la moo tax lu ñu def rek dagan na comme ñun nangu nu nekk ay nit ñun lu ñuy jàng léegi football bëre lu ñuy jàng musique lu ñuy jàng yu bon yooyu nga xam ne amul bopp amul geen yoo xam ne du diine du dërëm ku ci dee safara nga jëm yooyu la ñuy jàng léegi mbokk yi sunu borom nee nañu ñooñu ñooñu ëpp lépp ñooñu ëpp alal ñooñu ëpp ay doom mu ne fastamtau bi xalaaqikum ñoom day bànneexu nañ fastamtau lan la ñu bànneexu bi xalaaqikum lan mooy xalaaq bi nasibikum bi nasibihim ci seeni cër la ñu amoon la ñu bànneexu la leen yàlla mayoon ci doole ji ci kàttan ji ci doom yi loolu ñoom dañ cee bànneexu noos ci ba ni këj yéen tamit fasta fastatamtum bi xalaaqikum yéen a ngi nii di noos ci ci loolu ci seen cër yi leen yàlla may kama stamtaa alladina min qablikum bi xalaaqihim ah ndeke mbir yi noonu la ñee sax dem nañ bàyyi fi yu bon ñun tamit ñu jël ko roy ko ci ñoom wala ngóor jigéen kañ la woon lépp xaw ma loolu ñun tamit jël nañ ko tey di ci bànneexu kon ndekki affaire yi changement la toppante la ñii ñëw topp ci Sénégal dañoo xaaju ay xaaj ci Sénégal am na ñoo xam ne xaw mu nuux lañ topp ñooñu luy seen mbir bokkaale tey laa dégg ku naan ku naan benn waay naan man ba ma déggee sëñ bi ne eh, dénk naa ko diw diw diw moo faloon Blaise Diagne moo faloon Senghor moo kufru koo xam ne buy dee di dem safara fii ku fi falaata yàlla la qul illahumma malikal mulki tu'til mulka wa tu'izzul mulk wa tanzi'ul mulk wa tu'izzu wa tuzillu nan la ñuy waxee diw moo fal nit fii kenn falu fi kenn fii ku fi fal sénégalais la fal ak seen carte yàlla dimbali wax ne diw moo am loolu am waaye diw moo fal diw mooy folli loolu kufru la ku gëm loolu rek yéeféer nga te ku wax loolu waxuma sax na nga naan diw fukki juróomi Séné juróomi président yi nekk Sénégal yëpp nga ni diw moo leen fal ku mu neex ku mu naqari moo leen fal man ba ma xamee loolu la la la nangu moo mën a fen mu dem campagne ñu gañe ko amul dara mu jël ndaare naan damaa nangu bu nangu woon kay ba mu déggee loolu naan bokkatuma waaye daa dem jëlul xamul dara xamul sax lu muy wax nañu fii nee na rajax yooyu de la fi nekk woon nit ñi de fii de tooñ na fii de yooyu de la fi nekk woon nit ñi di ree def ko théâtre kat ñëw fii tey naan nangu naa ñun dañuy nax rek dañuy théâtre quoi dañuy théâtre Sénégal dañuy nax conscience islamique lañ amul dañuy nax dañuy fowee mbokki jullit yi yàlla mu ne wa xuttum yéen a ngi nii yéen di xuus kallezi xaadu comme ñoom la ñu xuusoon gis nga de ñoom fañ jaaroon rek ñun lañ jaar inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim ulaika ñi nga xam ne dañoo def lii nga xam ne dañoo jaar fa gaa yi jaaroon wa xuttum kallezi xaadu ulaika habitat amaluhum ñii seen jëf yàqu na sippeeku na fi dunia wal axira allahu akbar perte nañ àdduna perte alaxira yow am amoo loo tànn ci dund ëllëg lu dul nga xool xawmu nuux lañ defoon ci mbon bokkaale nga dem jël xawmu luut góor jigéen ñi nga jël xawmu soayib doon wàññi peese nga jël ah jël déviation yi nga xam ne moo amoon ba yàlla yónni ay yonent amoo loo jël ci lu baax ci yu xeet yi defoon lu nga jël mbon nga moo tax yàlla mu ne ulaika ñooñu ah habitat sippiku na yàqu na amaluhum seeni jëf fi dunia wal axira wa ulaika humul xaasiruna ñooñu ñooy ñi perte dëgg su bëggee bëgg xam ñi perte mooy ñu topp yahudi ak nasaraan yi dinañ roy ci seen aada topp bokkaalekat yeeg nit ñu bon ñi yàlla mu ne yéen sax alam yatikum xanaa dikkul ci yéen ñëwul alam yatikum xanaa ñëwul ci yéen lan xabaar naba mooy xabaar allazina gaa ñi nga xam ne min qablihim ñoo fi jiitu woon yéen sax xanaa jàngu leen loolu ci histoire jàngu leen qawmu nuuhin jàngu leen ko wa aad jàngu leen ko wa samud wa qawmu ibrahim wa ashaabu madiyan wal mutafika jàngu leen ñi ñëpp ah mooy ashaabul ayka ñi ñëpp jàngu leen leen seen histoire ngeen gis fi yàlla jaar ak ñoom ñi ñëpp la yàlla fuddu duma leen allahu akbar qawmu nuux fuñ mu jeeg yàlla ba nuux ne rabbi la tazar ala al ard min al kafirina dayaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu lan la leen yàlla def yàlla dafa leen a alak nan la leen alage ah daf leen a labal ñoom ñëpp qawmu aad lu leen yàlla def waa ma aad fahliku waaw loolu est ce que jàng nañ ko wala jànguñu ko wa wa samud nan leen yàlla def wa qawmu ibrahim lu leen yàlla def wa ashaabu madiyan madiyan kan la fa yàlla yónni woon shuaib ñii ñëpp yàlla alag na leen yàlla ne xanaa jàngu leen loolu xanaa xabaar yooyu yegg siwul ci yéen ah allahu akbar wal mutafikaat ñii ñëpp mu ne atathum dikke na leen ñëwoon na ci ñoom rusuluhum seen yonent bil bayinaati ci ay lay yu leer na leen jaamu leen yàlla bàyyi leen xërëm yi bàyyi leen caaxaan yi bàyyi leen góor jigéen gi bàyyi leen font gi ñu lànk wama kaana allahu li yaslimahum yàlla nee na li ngay dégg li ngay jàng nga dégg ko maa ko def wama kaana allah li yas tooñu ma leen de lakin kaanu anfusahum yaslimun waaye ñoo tooñ seen bopp ndax tere woon nañ leen ko ñu bañ waaye ñun nag du ñu ni ñu ngi ñu ngi koy tere ñu bañ di engagé dañ doon wax Sénégal ndax dañuy légaliser góor jigéen ñu ne amaguñu maturité bi léegi tey ministère de l'intérieur légaliser na ñaata 12 associations ñu ngi nii commencé ko bind ci permis yi ñu ngi nii fii santé yi ñu ngi ko ciy bind fu ñu jëm bu ñu légaliser loolu 10 12 associations yi xëy jour daal di ut këy ne dañuy mars place de l'Obélisque lu ñuy def dañuy mars wala duñu mars ñu jékki-jékki benn fan ñu ne dañuy dañuy takk sëy bu ngeen demee lan mairie lan Dakar ñaari góor jigéen dañuy sëy tey nga dégg gars yi naan laa ilaha illallah dëkk Cheikh Ahmad Bamba inna lillahi dëkk Alaaji Maalik dëkk loolu rek la fi waa Sénégal nekkee de kese dëkku diw dëkku diw ba kañ musiba yàlla nee na li ngeen dégg ma alak ñee tooñu ma leen wa ma kaana allahu li yaslimahum yàlla du tooñ waaye walakin kaanu anfusahum yaslimun ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax lan ñoo topp yoonu nit ñu bon ñi lu bon ñëw dal seen kaw ku topp ku bon li ko daloon dina la dal ku topp ku baax nag la waaja amoon ci lu baax di nga ko am tashabahu in lam takunu mislahum inna tashabuha bil karimi falahum kon mbokk jullit yi ci gàttal tënk bu gaaw lii mooy sunu ñaari aaya tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu mu jéggal ñu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu